taxaw ak yàlla taxaw am jaay ma xam nag suñu rakk waaye. dama bëgg ñëpp def élage dañu mu am rek dañ koy déglu. doy laa bëgg ñu toog. yàlla na ci yàlla defal ndam. ñëpp siis yaa ngi ne leen manqué wu kenn taxaw kooku di ñëw nag kii di ñëw nag mën a moom a bokk sëriñ kii ni nit ñi di amee star sama star lay dugg si. nit ñi di toogee ci télé di gërëm ku ma dégg ma naan maa ngi nuyu Mbaye Diop Jamil. waaw ah, ma nekk noonu. bu Serigne Mansour si Jamil Mbaye Diop a ngi nii. kii kii. Mbaye Diop Jamil kii tax ma fuuy kii. Mbaye Diop kii. Hmm. kii dafa tax ma fuuy jaay kii. dinaa ñëw léegi ci moom ndax dama bëgg diggante sëñ Ahmada waxtu wi day dem. te wax naa ko ba tàyyi dañuy waxtaane li gën a diis jékki ba ci yàgg monaat bi yéen wax a góoleel li diis ñu ne monaat lu diis mu ni sànq xorom ñu ni monaat noo xamee ni sànq xorom dafa diis mu ni kilim daf koo yenn jaar ci sama kaw kon nga xam ma xam ne mu amee doomu monsieur doomu madame la ministre ngi nii di yegsi kele door kele door ah? bi xam nga kele yaayam mooy ministre bi yor ah terrorisme tax mënuma koo wax ah déedéet yaayam ki yor jëm bi eh Clédor kaay dama lay présenter sëriñ bi Clédor yaayam mooy madame la ministre eh Clédor kaay wool ma Clédor wool ma Clédor kaay may ko mu jàll Aminata Tall Sall mooy way juróom ki mooy taawam Aïssata Tall Sall waa ministre affaires étrangères mu ngi nii yegsil kaay Clédor kaay Clédor kaay sëñ bi xam nga bonheur la ma woo deux heures du matin ni ma foo nekk kaay Clédor kaay ma présenté la sama baay ni ma foo nekk ma ni ko maa ngi wër xar mu ni ma Mouhamed boo duggee point e woo ma bi ma joxee xaalis bii su guddi dama dama doon miir moom mu ni ma ta joxuma la dara de dama laa seeti pour nga waajal tu moom mii passeport yu jafe yooyu ñuy maye woy juróom jigéen mooy kilifa gi mu ngi nii sëñ Ahmada Si sàll la sant taalibe cheikh la booy way cheikhu na Tijaani Chérif lu mu yor jox ko ci la xamante man ak moom sëriñ bi soxna Ngoy Fall xam nga ko Adja Ngoy borom oor yónnee na fi délégation démb la ma woo ne ma Mouhamed maa ngi nii jëm Mbàkke Kajoor ak sama borom kër waaye askiya moo la xool ci télé bi ni da ko neex invité ma gàmm moom ma waxtaan mu yónni ay nit anañu élage ngi nii Adja Ngoy Faala ko yabal ak jigéenam ñu yu tedd yii balaa ngeen di dem da ngay ñëw nii ma présenté la sëriñ bi xam nga ku may daanele jëm si buruus bi ku ko yor na puus ci sama soxna lay daanele sëñ bi kii papaam lañ ma tuddee multimilliardaire sëriñ bi boo xam ne mënuma mënuma koo gis moom mii papaam la nu ma tudde moom démb la ni ma nag bu ma ñëwul nag dig ma simmi sëriñ bi li may wax dama bëgg ñëw ñëpp noppi sama soxna laay daanele ah jox sëñ bi sama cappali d'accord yaay bu bëccëg bi maay bu guddi monsieur le Babacar Ndaw kii mooy sama monsieur le maire xam nga lu may wax danaan ma bëgguma laa dig ku ku xola ku dëggoo ngi nii ma ne ko lu tax bëggoo maa dig mu ni ma damay bañ nga woo ma doo ma jot Mouhamed sama diggante ak yow bëgguma nga woo ma doo ma jot lu moo na ne dama la koy wax uba kii gàmmu Tiwaawan defal na ma teraanga boo xam ni daf may woowaat ma bañ koo jël ndax damay bañ mu ni damaa juum naa ko ko delloo xam nga Wave day delloo mais Orange Money yaay delloo yow mais bi ma yónnee xaalis Chérif di ma woo ma koo jël parce que bu ma ko jëlee mën na ni ma damaa juum damaa jógee gàmm ni ko lu xew mu ne ma ndax jot nga li ma la yónnee man ko dama foog ni da ngaa juum te tollu ma fu may delloowee avance kii sol lu ñuul li Serigne Ahmada xam na kii mooy mbay Diop Jamil Baye Badou Baye Badou kii mooy mbay jóob Jamil mbay xam nga mbay lu ma yàq sëriñ bi xam nga mbay Mbaye nee na ma duma la may CFA barke alxuraan Mbaye euro rek la may may xam nga lu ma ko jàppe Pape Diop mii boo mu saan nekk grand plateau danaa ma nuyul mbay ma ne ko pap man mbay dafa mel ni neexuma ko parce que bu nu dajee faas daf may nuyu romb duma ko nuyu ba bés ñu daje mu ne ma Mouhamed man maay xool nit bëggal ko sama bopp nit du ma wax ci nit lu tax ma jàpp ko nit du ma wax ci nit lu tax ma bàyyi ko duma déglu nit di wax ci sama sama nawle waaw kay ñii nañ ñëw sëñ bi mbay Diop loo xalaat ci teraanga xam nga ni Mouhamed Mbaye buy ngéntee biir Dakar fuuy xam nga ni Mbaye mi cummi la ci Mbaye Diop Ndiaga Ndiaga bu may ngénte Dakar fuuy Mbaye Diop sama cummikaay la ci sëñ bi ñii la Adja Ngoy Fall yabal dama bëgg rek wax ci sama soxna ba pare kii mooy Cheikh Yaaba bu Serigne Babacar si soxna Ngoy Fall la ko yabal ak sama xarit bi nga xam ni man ak moom xuloo ñaari minute juboo ñaari minute <laughs> ar eh, Cheikh gis nga madame Guèye borom du bàyyi taw féex nañ leen wutal fu ñu toog ñu jege parce que dama bëgg kenn dootul wax ku dul sëñ Ahmada ñas ñas ñas ñas yàlla seede na ni bég naa sëñ bi boo demee Kaolack li muy nekk tout tànk ci zahir zawiya la fa tabax zawiya boo demee ca zawiya ba da ngay yéemu danga naan ndax lu mel nii at yi mu toll war na ko mën a tabax ah, bi muy defar fondement bi cofeel dox ci sunu diggante mu ne naa ko seet ni waa Kaolack yëpp oustaz Mouhamed ay seet daf ma teral ba jox ma yére yi ñuy teg ci kaw daf ma teral ba gunge ma dugal ma foo xam ni danga naan fii nit du fi dugg waaye sama soxna lay gërëm bu ko jafeeloon rek mu metti sama soxna sëriñ sama soxna lay gërëm bu ko jafeeloon rek mu metti comparaison man li may wax ne yonent bi lay tagg kenn feesul sama bët waaye boo doon comparé ma nekk ci banlieue bi nekk yëmbal fii la juddoo fii la yaroo fii la màgge sama soxna musul xam luy seen TV bés bi ma koy xam xamul ni seen TV am na li tax ma xarse sama tànk bu bay bi ma koy takk xamul ni seen TV am na kon xam nga jàppewu ma star sëñ bi lu lu garaaw laa lay wax kii papaam l'an 2000 la gaañu ma nekk benn daayira yëmbal raqu yaayam bu mbokkal ndey ak baay maye tuuru njaal fii ci kër gi l'an 2000 boobu laa gën a nekk ndaw ñaar fukki at dox na ci ma ñëw ci kër gi firi ko firi daayira bi looy toj day fekk nga xam ki ngay tojanteel xaw ma ko xaw ma déj na ma firi ci kër gi ñibbi xoolal l'an deux mille vingt ans après vingt ans jour gàmmu ci corona bi passé Assane Fall global sama xarit téer bii jaay tisi ni ma kaay nga sagal ma saa dakkan journaliste doomam day def gàmm dama bëgg nga sagal ma ñëw ma ne ko Assane damaa xat boobu maa ngi ñëw ci Modou Fall mii këram mu forcé ma ba ma jaar liberté 5 ni leen 5 minutes ku ma fekk ngay wax dinga ma may cinq minutes yi ma jël di waxtaan comme bët dafa soog moom muy seen bi bu rombee rek ma naan ah waa ndaw waa ndaw si moom bu ma borom kër waaye ci seen bi su rombee rek ci biir waxtaan ma ne may kër waaye loolu laa doon waaye comme ñu ngi may woo di ma yàqamti Tamsir Ndiaye mais di ma woo. <laughs> ma ni bésu gàmm ci Corona ñu invité ma Liberté 5 sama benn xarit taxaw leen moom mii ma jaar ci programme fekk muy séeréer bu rombee rek ma naan eh yàlla bu mu am kër waaye bi ma yàqamtee di dem ñu may jox lekk fi ma toog ma ni leen damay dem mu ne nan ko def ci barket. bi mu wàccee ci biti taxaw ma ne ko noo tudd bisu gàmm mun ma Aïcha laa tudd ma ne ko ah, yow de aawoo yonent bi ah, yow soxna yonent bi nga ni ko ndax mën naa am sa numéro mu jox ma ko ba ba di yàlla lay def balaa yem. man man ko Mouhamed laa tudd yow war na noo mën a xaritoo waaye falaa yemandi en attendant ndax sii yi xam naa leen sëriñ alal ju bari taxaw na ci ay tànkam kilifa gu nekk traversé na ko borom personnalité bu ne taxaw na ci kanam ku wax rek mu ne Mouhamed laa bëgg te xam na ni Mouhamed ndongo daara la Babacar Kassé mi xam na ci dara mu mu jàpp rek ni ndongo daara la deuxième jour bu ñu gisee man ak moom xam nga lu ma wax man nag du ma ànd ak ku amul ambition bu ma leeree ni da ngay samp kër dugal njaboot toog gérer dinaa jël engagement ñu ànd ñun ñaar. ma présenté ko sama mag ji mu ni ko li ma bëgg mooy bu fekkente ne am na ambition ma ànd ak moom ñuy ànd di jug di daanu di ànd di jug di daanu di ànd di jug di daanu ba bésu tey bii xam nga lu garaaw vingt ans après ma duggaat sol ñetti ab du ñëw ba ci buntu kër gi fay sama oto parfum wu xeeñ daagu nànk leen sama yére yam ci yaayam yaayam moom a gën a bëgg moom yaayam bu yëgee ni fi laa fi laa aye du am jàmm bu may tëll muy yaayam ni ko ni ma yow mosoo fee ñëw ma ni ko fii déedéet mun ma yaa vingt ans ma mère bi nag tubaab la yaa vingt ans ci ginnaaw je te vis ma yaa vingt ans je te vis là est-ce que que est-ce que ma belle ma ni ko c'est mun na a habite à la man ko oui moi j'habite au Yeumbeul waaw bi jër naa dugal ah mun ma oui mais kër gi li tax mu mett ci man mooy boo fi duggee amul ku wax olof kenn du la may doole tout le monde vous parle français moo tax démb ma ni bu fekkonte ni yére dañ koy jaay ngir ngir bégal la yow dinaa ko def ndax mbaa xam ndax bu ma nee ko toogal mu toog. sëñ bi chaque jour j'ai de bourrier <laughs> démb nag nee naa ko liir bi bu ma duggee ci biir maire yi ma Mouhamed soo son fils est góor il góor ma ne ko maire fexeel mu gérer français bi man ma gérer arabe ñëpp laa koy wax. du ma gërëm a gum de waaye sama soxna maa ngi koy ñaanal yal na yàlla sàmm la xaw ma beneen yoon de waaye fii nga teg sa tànk boo ko fi tegee lu ne mën na la fay fekk sëñ bi daaneele ci way juróom wu jigéen mu ngi may jàppale mu ngi may soutenir mu ngi sonn ci man bu ma ñëwee fekk ko mu fomp sama maraakis damay stressé maire bi bu ma ñëwee fekk ki nekk ci biir dafa naa ma da ngay dem grand plateau dañ lay xaar ay ca ay ca maas maas ma lekk daf may ma ne ko maire dama yàqamti ñu Moustapha Sow xam nañu li may wax bu ma ko woy ni ko dama demoon conférence xale yi laa àndal ñu ngi ñëw ma ne ko waxal maire na defar bu ma ñëw lépp laa fiy fekk ku ma am maire teralal na ma ko ku ma am maire jàppale na day yëkkati xaalis di ma jox maa ngi koy ñaanal yàlla bu koy màkk umpaat ñaanal ñëpp ku ma tuddul na ma jéggal bu ma sa Adja Ngoy Fall sëriñ bi ki mu yaba rek moo ci des Pambay mii sama mag la mooy sunu taaw fi